dialogue mun a ñàkk le président a dit que y a eu quatre-vingts millions de morts guerre mondiale biñ demee ba gis ne affaire yi jaxasoo na ñu ne nañ toog autour d'une table toutes les guerres se terminent autour d'une table waxtuma laa Sénégal nekkuñu ci guerre nekkuñu ci rébellion nekkoon nañ nag ci benn guérilla urbaine nekkoon nañ ci benn mbir moom ne gatsa gatsa la dem nañ ba Sénégal ci boppam socialement dañoo diviser wu dans les maisons Hmm. dans les partis politiques dans les entreprises dans les sociétés nous avons deux Sénégal ñii far fii ñii far fii ñaar ñu bokk bàyyi duñ tuddante ñi bokk ndey ak bàyyi duñ tuddante ndax lan benn minorité de politiciens yoo xam ne il aspire à diriger ce pays leen ma jiite leen ñoom ñëpp lañuy ko xëccoo pour jiite ñu soit léegi ñoom ñuy xëccoo pour jiitu ñu motuñu vingt personnes. Hmm. bëgg a jël réew mi wëlbati ko mu nekk ci tension boo xam ne bu duggee ci musiba yàlla bu mu am fan lañ jëm ëllëg. Hmm. dialogue bi c'est très normal c'est très lucide et c'est très logique. Mhm. képp koo xam ne jàpp nga ne waroo dem waxtaan. damaa jàpp ne ennemi wu Sénégal nga. déedéet damaa jàpp ne am na lu làqu si ginnaaw non parce que amul tax. Mhm. buñ demee ba réew mi jaxasoo. cocktail Molotov di am ñuy jàpp ay milliers de personnes ci kaso bi. Mhm. kenn ñemeetul kenn kenn wóolatul kenn ñu ne léegi kaa la ñu jël baax gas baax suul lépp. mais est-ce que jàpp datu élection euh, jar am lu jiitu lii. non mais attention parce que ci entretien président de la République mi ngi wax ne du ñu fa waxtaan du ñu divaguer daañu di lu ñuy waxtaanee rek mooy. ordre mais loo gis mooy nan la ñuy fexe ba jàpp. une date pour l' élection présidentielle oui. mais xam nga lu tax mais loo gis dafa am structuration Sen TV dañ ko structuré. oui am organigramme am programme. Mhm. su ma ñëwee émission grande gueule damay waxtaan émission grande gueule su ma paree ñibbi. Mhm. mais bokk ma émission du melaan ñëw rek toog du melaan c' pas comme ça. tout est structuré le président pour dire aux citoyens sénégalais ak ñi ñëw ci dialogue bi. Mm. que ce sera un dialogue structuré que ci lii la ñuy wax lii mooy doon terme de référence yi. Mm-hmm. base fondement wu terme de référence yu dialogue bi mooy jàpp bés bi nga xam ne moom la war a demaat élection présidentielle. Mm-hmm. li nga xam ci turu conseil constitutionnel la jógee. Mm-hmm. ñu fàttali ne date le 25 bii nga xam ne moo nekkoon élection présidentielle. date bi ci pa la bokk on dit une date postérieure mooy loo xam ne wees na à travers l' article bu constitution wu Sénégal kon date amatul kon président amul droit moom ak obligation tànnal boppam date ne kaa leen dem ci élection bu ko defee wàcc na yoonu constitution violé na loi bi. Mhm. violé na constitution bi moo tax conseil conseil ils l'ont très bien dit dem leen ngeen waxtaani parce que xam nañ ne amatul léegi prérogative mhm. jël date parce que wees na léegi kaay la waxtaan pour xool ban date la ñuy jël te ci biir discours am wax na ne. Mhm. je vais me avec les 19 candidats. man damaa jàpp ne 19 candidats yi ñoo légitime pour le moment. waaw pour dem élection présidentielle li ma jaaxal si ñoom nee dem. dama ñuy waxtaanuñu non xoolal dañuy sóob. xoolal fii ñoom ñëpp xel la ñuy teg. gis nga politiciens yi. Hmm. guddi gi ñuy daje di reer. di waxtaan. Hmm. balaa ñuy wax allahu akbar. Hmm. bu ñu xëyee 10 heures jëm midi. la ñuy waxtaanee ci mbedd mi. sénégal yi gëm ko. wuute nag la ñuy waxtaanee. Hmm. dañuy jouer ci xelu sénégalais te loolu daa war a dakk ok nañu jël li bon ki tooñ ak ki tooñul ñu gas par suuf lépp moment biñ toll nii ka muy chroniqueur ka muy journaliste ka muy acteur politique képp kuy wax danga war a wax ci liy jàmmub Sénégal ak lu koy dëgëral parce que fa lañ toll. Hmm. ñu xool situation yi nga xam ne dina permettre nit ku nekk. Hmm. nga andi sa contribution pour jàmmam. tey buñ ne une date lañ war a jàpp. quand ils disent qu'ils vont mais boycott yi boycotté woon dialogue bi passé ils ont les pots cassés que bu ñu demee ci dialogue ba bii nga xam ne amoon na bu wees Khalifa Sall demoon na fa parce que il avait intérêt à y aller damaa bëgg a bokk nu ma bokkee rek baax na mais naa bokk damay dem Karim Wade ca la jaar ñëpp bokk société civile bi ñëpp dem mhm. politiciens yi nga toogoon nañ ne duñu dem mais ba décision yi génne ci jaloog ba bañ koy exécuter dañoo ils ils ont ils ont subi la loi de la démocratie dañoo bokk ci li nga xamante ne doxal nañ ko mooy décision yi nga xam ne am nañ ko wala am na wala amul. Mhm. boo demul. ña dem bu ñu jëlee décision bu ñuy doxal décision bañ jëlee ca dialogue ba nga dem ak ñàkk dem par force bu ñu ko war a exécuter dalay dal sa kaw. loolu la ñuy bañ ñoom mu dalaat leen et je crois que dialogue bii passé war na jàngal ñiy recalé ñi ñi nga xam ne dañ ne duñ dem li nga xam ne amoon na bii passé te nag président il a eu raison à dire que je vais recevoir d' abord les 19 parce que c' est eux qui sont légitimes pour aller aux élections présidentielles. conseil ci biir leetaram sax boo xoolee. ñoom la reconnaître que ne ñi ñoo war a dem léegi nag ñaari mbiram ñenn ñi bëgg nañ ñu recommencer processus électoral bi à zéro ce que je trouve que man jàpp naan du mën a nekk. Mhm. tey ñoom bu ñu insister pousser le président de la république. ah mais bu consensus amul ci dialogue dama ne parce que dialogue waxtaan la rek. dama ne consensus mënut a ñàkk laa wax. ah mais xoolal xam lu fi am. xamuñu lu fay xew xoolal man xamal la laa jàpp. <laughs> xamal la laa jàpp. <laughs> ñett moo waaw. le président damaa jàpp ne il va se concerter avec les 19 pour ñu jàpp date. oui. su paree. Mhm. il va discuter avec les recalés. Mhm. déglu ma de. xam nga dafa am ay mots français yu wute. <laughs> dina concerté wu ak ñee ñu jàpp bés. parce que ñoo légitime. ñoom ils sont légitimes ban bës ngeen jàpp. Mhm. ñi nga ne c'est des recalés qui demandent ak ce qu'on recommence le processus à zéro. président day conseil day waxtaan ak ñoom day discuter ak ñoom waxtaan. Mhm. mais je crois que waxtaan nga muy waxtaan ak ñoom dañuy sottante xalaat rek. bu paree am na beneen troisième point il y aura des négociations parce qu'on parle d'amnistie. Mhm. concernant Ousmane Sonko. concernant Bassirou Diomaye Faye. très bien loolu dinaa et j'en fais une entre parenthèses. oui maître Moussa Diop je lance un appel ici au président. Mhm. au gouvernement. mu bokk ci au sénégalais. lu bon bon bon liggéey na. Sénégal à travers Dakar Dem Dikk xëy na juum na def na erreur nañ ko si boole waale parce que nag deful ci réew mi tamit li tax ñu war ko mën a fàtte ci kaso bi léeg-léeg woon ne politicien du mbokk seen intérêt la ñuy préserver Moussa Diop ba mu duggee fee ba léegi néew na nga gis politicien bu ko kaasal wala nit ko ko xeexal te pourtant dafa wéet ci lu mu ne pourtant ñoom ñëpp fekk si woon na lañ seen i combat je le dis une entre parenthèse pour sénégalais bàyyi ci xel aussi jàppale waale ko ci président bàyyi waale ko ci xel mais gis nga Seyna Mohamed je lance un ñi nga xam ne dañ duñ dem ci dialogue bi. Mm-hmm. bu ñu bëggee réew mi nañ dem. Mm-hmm. suñu bëggee jàmm sax ci réew mi nañ dem. Mm-hmm. am na nag ay dusu yu ci am. Mm. ñenn ñi seen sago mooy Ousmane Sonko. <laughs> bu mu bokk bu ñenn ñi seen sago mooy bu Karim Wade bokk. mais dama ne man fii ma toog. Mm. Ousmane Sonko woo Basirou Diomaye Faye yoo mm. Moussa Diop ñi ne ci kaso yi. te def li nga xamante ne jarul sax yenn yi. Mhm. nañ leen libéré. ñi eh. def li tax nag ñu doy ba fa tëj dinañ fa rab. nañ leen fa baax parce que après boo koy defar da ngay jël lépp teg ci suuf jël lépp teg ci suuf boole xol yi amul benn bokk yaakaar. Mhm. amul gëm sa bopp. amul ta yeewi askan wi amul taayu askan wi amul wallu mhm. benn Sénégal moo fi léegi nag sëriñ si dugal ci seen loxo te sëriñ si ndeysaan dama leen a yërëm. nos chefs religieux ne sont pas des présidents ne sont pas des présidents de la république citoyens sénégalais lañ yoo xam ne comme ñun ñëpp seulement dañu am benn statut bu ñu bëggee taxaw di leen di xas ak di leen di ŋàññ mm. dañoo ñu ngi wax bés bu ne mais nag bu ñu bëggee ñoom la ñuy wax muy continuer di dem bu ñu joxee ndigal joxe seen xalaat dañ koy respecté mais nañu boole xel yo xol yi ànd jéem a defaraat réew mi ndax pétrole gaz bi di ñëw. mu bañ a tàkk suñu kaw jërëjëf sa njàngat par rapport ak euh, thématique bu njëkk ba euh, vous faites partie de la coalition Benno de la majorité président woote na dialogue am na ci kàddu yu ci jub euh, ay candidat ñu valider seen candidature toll ci fukk ak juróom-benn ne duñ ca dem déjà naka nga jàngatee euh, woote bi ci njiitu réew de la République ci eh, boobu la dialogue. lu may eh, jàngat mooy rafetlu déjà. Mm-hmm. Euh, l'initiative l'initiative. Mm-hmm. qui a été prise par le président de la République. Mm-hmm. parce que Mohamed. il y a pas un pays au monde gouverné légalement te musuñu toog. waxtaan a amul. donc je pense que l'opposition qu'on a si vraiment ñoom euh, intérêt réew mi moo leen ñor war nañ ñëw ci dialogue bi légitimité dialogue bi moom ku ñëwul moom bul foog ne ce sera pas légitime lépp luñ fa tënk te ñëwoo dinañ ko kii dinañ ko appliquer moo tax je pense que euh, Sénégal war nañ seetaat seen bopp le président ñëw na avec beaucoup de sérénité mm -hmm. comme d'habitude ñëw toog recevoir la presse waxtaan ak la presse jàpp date nee na tel jour et tel jour dialogue bi. Mhm. dialogue bi c' est pour au moins waxtaan loo xamante ni ñëpp dinañ ci déggoo. la date actuellement c' est confus. maintenant c' pour au moins relancer benn date boo xamante ni consensuel pour tout le monde. Mhm. ñëpp d' ci. donc vraiment opposition bu ma gis nii. suñu mhm. demee ba vraiment di jéem a boycotter je pense que c' est ça indifférent au dialogue ah je pense. su ma ñëwee ci dialogue bi encore oui. c'est que le dialogue euh, la date c'est très important mm comme euh, l'a dit mhm. bokk na ci dialogue bi au niveau des candidats du plus du moins benn candidat foofu moom xam naa ne moom les candidats retenus c'est officiel. Hmm. parce que dialogue bi mënatul parce que le conseil constitutionnel a validé tel tel tel tel donc mënuñu doon dem dialogue ba pare encore ñu naan il faut ñu yokkee ñu yokkee foofu ça ça c'est kii dialogue bi ça va porter sur. Ah, la ah, kon kon la moo dama la ne juridiquement. moo tax ñu woo spolier yeeg rek. non non dama la ne <laughs> juridiquement. <laughs> waaw dialogue bi. Eh. mënul yokk candidat mënul wàññi candidat kooku man maa la ko wax. ah bon c'est pas possible. Ah. c'est pas possible. Hmm. le dialogue se portera uniquement. officiellement la date. ñëpp boo xamante ni ñëpp dañ koy. avec les 19 retenus. avec les 19 retenus. Sagna les élections ne sont pas suspendues. wallaay oh, y a un uh-huh. le dépasse. rebelote mooy voilà donc la date. Uh-huh. suñ ko jàppee. Uh-huh. ñëpp and ki je pense que loolu mooy indi jàmm. Mm-hmm. ñii di naan du ñu ñëw dialogue du ñu ñëw dialogue mm-hmm. suñu jàppee loo xamante ne vraiment consensuel ci biir dialogue bi. Mm-hmm. suba encore la ñuy ñëwaat encore di indi ay marche. mais réew mi réew mi dañoo soxlawul actuellement ay marche ay ay ay ay ay dóorante. nañ xam ne Sénégal actuellement. Euh, waxtaan moo fi mën a am. ñu jëmmale réew mi kanam. il faut que les gens soient conscients ñu bàyyi lu def. Mhm. ku mun a ñëw dialogue nga ñëw dialogue soo ñëwul nag tout ce qui est ce serait retenu là-bas je pense que euh, bul indi ay marche le lendemain di orga c'est ce qu'ils vont faire mhm. je sais que c'est ça leur plan mhm. moo tax ma ne leen réew mi ñoru leen intérêt réew mi ñor leen intérêt réew mi su leen ñoree dinañ xam ne jàmm lañ bëgg le président jàmm la woote nañu ñëw ci jàmm ñu waxtaan. mais ñu ci bëri ñoom dañu jàppoon ne mënoon nañu bañ a àgg si fii ci ay dialogue ak yu mel noonu yomboon na ñu tànn ab date euh, ñëpp tënk si ñu. organisation mais mais loolu laa la wax la date dialogue yi pour dialogue pour lan ak pour pour euh, lijjante lan en fait. non que c'est pour au moins waxtaan. parce que lépp lu jaxasoo lu nekk waxtaan rek moo ko mën a defar. Mm-hmm. lu jaxasoo lu nekk dëkk bu ne amul benn pays bu nekk au monde boo xamante musul waxtaan hmm. problème bu am dinañ toog waxtaan si la table les hmm. pays les plus développés su amee jaxasoo dañuy woote waxtaan hmm. pourquoi pas ñun Sénégal une opposition boo xamante ne vraiment man je peux pas xaw ma nu ma leen qualifier buggu leen jàmm ñëw leen ñu waxtaan buggu ñu ñëw waxtaan mais qu'est-ce qu'ils veulent maintenant man la question que je pose à l'opposition lan lañ ñëw leen ñu waxtaan ñu jàpp date boo xamante ne ñëpp dinañ ci déggoo ñu xool nu ñu organiser élection yi nu mu gën a gaawee mais quand je pense que loolu da c'est à saluer de la part du président de la République moo tax vraiment. ni mu waxee ak Sénégalais dal na dal na xel par rapport ak euh, réitérer encore une fois que ne euh, le 2 avril. il a réitéré que le 2 avril sa mission de président de la République ci lay jeex mais nag eh, dëkk euh, dëkk bi mënu nekk noonu sans sans un président. Mhm. il faut au moins parce que il peut pas y avoir de passation de de pouvoir. sans un président élu. voilà donc mhm. loolu aussi nit ñi dañ ci war a xam loolu mais Macky Sall son excellence moom. qui pousse aux jeunes. de plus détester le gouvernement détester le président de la République en oubliant que. war nañu wax jeunes yi ne am leen espoir que ne pétrole ak gaz war nañu koo jaay rek te war naa ubbi ay buntu yu bees nañ ñaan yàlla jàmm ci réew mi tey ñaan yàlla suñu sëriñ si yàgg fi loolu waxtu bi moo ñu dab si daal merci waay merci maa ngi lay sant di lay gërëm booy à la semaine prochaine merci et puis di nuyu à travers waa parcelles yëpp waay ñu ngi leen di fay aussi merci beaucoup merci merci góor gi ñu nuyu waa Wakaam yow itam waaw maa ngi nuyu Wakaam mhm. comme man dama bokk Kajoor bokk Ndakaar. waaw benn parti bi lébu la. waaw benn parti bi Kajoor. <laughs> moo tax maa ngi nuyu waa Wakaam bi. moo tax wala fi set. <laughs> nuyu waa Kër Moussa aussi tamit. très bien 36 commune Kër Moussa. Mhm. ñoom ñëpp ñu ngi suivre émission bi maa ngi di nuyu bu baax a baax. Mhm. di leen jaajëfal. di nuyu ñu waa gëm sa bopp yi nekk foofu yëpp. aussi tamit très bien nuyu de région de Thiès aussi tamit fàttewuñu leen. merci voilà merci beaucoup. lay jaajëfal yow aussi. ñoo far góor gi merci beaucoup. macha allah di nuyu sama co-débatteur yi. la république. waa mbalit mi nañ leen bàyyi xel bu baax a baax. ñooñu waruñu waruñu di grève. on doit les mettre dans de très bonnes conditions surtout les mm-hmm. Samba bu intérêt général ak monsieur Ogombeng xam naa ne ñoom dinañ góorgóorlu bu baax sur les détails. très bien ñoo ngi leen di nuyu. merci beaucoup alors ak team bi. mais ñu euh, nuyu sëñ Omar Mbaye bu Thiès. waaw ak sëñ bu Gisee. Merci. Merci beaucoup. voilà, Alors, Actim bi on se donne rendez-vous évidemment euh, samedi désormais c'est tous les samedis à grand de de l'actualité euh, ñu leen di ñaanal jàmm ak surtout ngeen wéy surtout di topp programme Sen TV la chaîne leader euh, di leen jaajëfal encore une fois et puis ci kanam programme bi day wéy ak l'édition du soir ou les éditions du soir jaa ngeen jëf